Euh, bii nag benn docteur la muy xamal benn jigéen naka la war a def pour aar boppam ci jàngoroy cancer. Euh, salaamaaleykum noo def. maa ngi fi sama xarit yow nag. sant yàlla bu baax dama war a daw léegi ci post de santé ba ndax fii ak fanweeri minute dama fa am euh, rendez-vous pour def pap test. waaw luy pap test. benn test la boo xam ni doo ci fay dara te képp kuy jigéen. da ko war a def pour aar boppam ci jàngoro ju ñuy wooyee cancer col de l'utérus jàngoro joo xam ni ci sëy nga ko mën a jëlee te dafa garaaw test bi boo ko defee dalay woon siiñu jàngoro bi bu dee am nga ko te bu boobaa mën nga koo faj bu gaaw pap test ñu ngi koy war a def ci diggante ñaar fukki at ak juróom ak fanweeri at ak ñett te ñetti at bu nekk danga ko war a defaat bu fekkee ni nag jigéen bu am diggante fanweeri at ak ñeent ak juróom benn fukk ak ñeent dafa war a dem def benn test boo xam ne mi ngi tudd AKPV waaye bii nag juróomi at yu ne nga koy def est-ce que yow mës nga koo def mës ngaa jot lettre bi. non mësuma kaa def taxu ma ci woon dara nag. man bi ma ëmbee laa ko mës a def léegi jot naa ci lettre bi ak rendez bi lu am solo la. waaye examen bi dina metti. déedéet comme visite gynécologique la rek lu gaaw la dalay déranger tuuti rek bu fekkee ni dangaa bëgg yeneen information dangay woote ci post de santé ba. wala nga dem ci situ région Toscana ba am na parti yoo nga xamante ni bind nañ ci post de santé bi la gën a jege seeni heure ak seeni numéro de téléphone. jërëjëf sama xarit. waaw kay ñoo ko bokk ba beneen yoon. ba beneen yoon.